gis virus bi dafay ngandal dix mille fois électronique lay doon dafay ngandal dix mille fois parfois ba quatre-vingt mille fois nga soo gis mala boobu kon lii lan la mbindaafoon la ci mbindaafoon yàlla moo tax aaya alquran dëgguwaat wa maa yaalamu junuuda rabbika illaahu mm-hmm. yàlla rek moo xam ay mbindeefam ni mu tuutee kenn mënul imaginer lii lan la benn béjjén bi dafa mel ni comme njoxu ñay fi fi muy jeexee dafa am bën bën euh, mu tàppandaar léegi moom buy lekk boobu lay lekk bu lekkee nag ba doylu buy buusu bi muy buusoo dafa sew comme boti comme poson te poson lay sotti bu dee ba yëg lu koy gaañ si am na beneen bi beneen liquide lay tuuroo dugg ci biir te liquide boobu dafay fàtt nit kon koy dee dikk na mm-hmm. bon bu nit di nokki dafa am lu ñu tuddee saxiir ak zafir mooy nokki ak noyyi nokki ak noyyi du benn nokki mooy xëcc noyyi mooy génn doon yu ngelaw boo xëcc buñ ko xaajee téeméeri bërëb vingt pour cent yëpp oxygène la booy nokki doon yu ngelaw bu dugg vingt pour cent yëpp oxygène la soixante dix neuf pour cent yi nitrogène la zéro virgule zéro quatre pour cent yi carbone la un pour cent bi des mooy guus guus bi léegi nag guus guus boobu la moom ci lay làqatu dugg moo tax ñu na nit ñu sore wàllu tuuti waaye moytu ko hé yàlla rek moytu ko yàlla rek bu ñu waxee foog ñu topp leen waaye moytu ko léegi man laal naa lii yàlla tere bu ma ko yoree boo ko laalee nga jël ko ñoo naa ci banque bi dugal sama loo génne sama carte boobu nu mu tudd cher gab carte gab bi nga laal ko ñu ngi sa loxo nga dugal gab bi génne keneen ñoo dugal gabam takkal takkal na ak carte ko mu dugal ci boosam yóbbaale na ko lii noo ci mucc ñëw nga ci ascenseur bi bës nga bouton mu yóbbu la troisième étage keneen bës ko mu yóbbu ko dixième étage jël na ko kon li fi nekk mooy delluwaat ci borom bi subhanahu wa taala xam ne yàlla rek mooy almutakabbir ngand du kenn ku dul yàlla jàngoro bi jox ko docteur bi lii mbiru docteur la nañ ko bàyyee docteur yi dimbale leen ci ñaan dimbale leen ci alal fital leen may leen xel te ngawti ngawti bi du solution ci lii de nga xam nga ni lislaam tey biit bu rëcc bu mag rëcc na pas-pasam kaaba gi ñëpp yaakaar bu ñu nee bay pomp kaaba gi ne dañ fay ree jàngoro lu ñu deseeti ci ngëm lu ñu deseeti ci ngëm xut bu zamaan yi fa ñu tëdd ci bàmmeel ñu koy tëj ràpp ne microbe ba mi ngi fa kon ña fa nekk lan lañ ti waaye boo leen wuyuwul ci seen solo ñu ne intégriste la dafa bëgg a sànk ummatu muhammad dafa dëgër bopp dafa contre nguur nga def lu lay may jàmm nga jàll mm-hmm. sa entourage nga bañ leen a lor mm-hmm. lii dong la de waaye pour pat pati wala am xel ñaar ci yàlla wallahi léegi laa ilaa illaa hu nekku sama bi mm-hmm. waaye balaa ñu may diaboliser di ma boole fu ma bokkul soo ba léegi renseignement yaa ngi naan moom dafa dëgër bopp de dina sànq man ma sànq man balaa may am sama néegi bopp hôpital laa tabax def ci cent onze millions kenn du fay ba may dem ziyaara bi ambulance bi sama doom a ko jiital ma topp ji buñ gisee lu ñu xamul ñu jël ko yóbbu ko suñu hôpital yi lu passé juróomi téeméeri nit ñëpp di jàng ñaata at kenn du fay man maay fay kooku dina def luy gaañu réew centre social ñëpp di jàng togg fóot ñaw kenn du fay kooku dina def luy gaañu réew waaye nag buñ ne kenn ku nekk reyal sa noon teel sa xarit nga denc sa xarit la waaye noonu keneen la yal na yàlla dimbali